makaarimul axlaaxi mbakkaanu yeem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bari ay xame murit yaag tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh Abdul Karim borom makaarimal axlaax murit yaag tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jëlaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya mokk lool ndax moom day kenn ci sëriñ dafay dafay xaritam dafay soppeem dafay lépp saa suy ñëw ci sëriñ bi sëriñ bee koy gàttul bopp mooy ànd ak moom ba ci biir ñu waxtaan bu noppee moo koy mooy duggaat ak moom fa ñu koy dalal mu toogaat ak moom ba ba ba ba ñu def lan war a def ba ba sëriñ bi war a yeewu ko ak moom mu mu mu ñëwaat ñu tàggatoo mu gunge la loolu la sëriñ bi defaat ndax moom daa daa daa daa xam ni jëmm ji ci ci li muy dégg ci ci ñu koy wax ci mbaax ñi fi nekk ñépp xam li ñu wax ci moom dëgg muy muy mu yërmande ji ji ji mu mbaax mbaax gi nga xam ne ëmb na ko léegi maa ngi koy nettali euh, Cheikh Malick ci oto bi man sëñ Bakki Soxna dafa am ko dem ci Cheikh Aziz mu sëñ Abdoul Aziz moom sëñ Ba am koo xam ne daal problème mu 15 millions 15 bi ne ko kenn rek ku mën a faj muy sëñ Bakki Soxna Lo daa dem ci Cheikh Aziz ñu ne ko kooku de mbokkum sëñ Bakki la boo ko waxee mu dimbali la bi mu ñëwee wax ko Cheikh Aziz ni ko de sëñ Bakki di sëkkuma moom. lu ma koy laajee ba lu ma koy waxee soxla waaye kooku nag daa yolleeku dem ci Serigne Mbacké ni ko Cheikh Aziz ma yónni dama am problème fukki fukki million juróom Serigne Mbacké ni ko defee ko fi waaye juróom a yoo xam ni danaa la ko jox damay tukki nag waaye su ma ñëwee danaa la jox keroog bi Serigne Mbacké dem di tukki ci biir oto la ko dugal ni ko maa ngi ne aéroport la jëm daal di jël adresse am bi mu ñibbisee woo Cheikh Aziz ni ko am na ko si Aziz ni ko man en tout cas am na ku fi ñëw ne daa daa yaa ko yónni fukki million juróom laa ko war a jox joxoon naa ko juróom te maa ngi fukk ak juróom yoo xam dama ko ko jox si Aziz ni ko mukk ko xaw ma ko xaw ma ko de si ñàkk soxla ni kon nu may def sama kat wax naa ko ba noppi daa ni woo ko nee na ñu woo ko mu ñëw mu ne ko joxoon naa la juróom fukk ak juróom a ngi nii xam naa ne juróom ya sax ko ci tab jooju sëñ Bakki yoroon mu ngi ci ci <laughs> ay lu ma servi dama koy nëbb mu waroon mën ko sa ndey dafa dee jël yóbbu yóbbu ci sa kër nga denc dox say jabar te doo ñaan doo baa doon man ku la bëgg laa dama bëgg nit koo xam ne ku mënul bañ a am yow da suñu mbokk moo tax te boo gisee sa mbokk muy nit ku baax da nga koy envier tout dëgg mhm. parce dama gis TikTok bi am ko naan yow Cheikh Abdoulaye Sène soo ko bëggee nax alsaan seen mhm. tuddal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boo tuddee yeneen bi rek loo ko naxee mu gën leen allah soxna si wax ni moom ku nekkal sëriñ bi rek di mbokkam di xaritam di taalibeem daf lay bëgg ne rawatina nag yow ngay mbokkam du wér ku ñemee kurus la kii xarit moo ko fi indi dama ci jël seet ci boo ci bëgg loolu kon moo leen boole bu ko yoree doo la gisee daf laa jox yitte ndax mën na fa am yitte nuyu la yow taloo dara lu may xool course bi rek mu présenté ndax di koy sëriñ bi moom nga yor ci yaatal ak bëggu bokk nuyoo ak moom mu jox la sëriñ bi ngeen waxtaan ne boobu ba léegi lu baax loo xam ne war na ko defal sa mbokk sa jigéen sa xarit yaa ngi koy defal mm-hmm. te teraanga baax na waaye teraanga bu ànd ak yàlla ak jàmm te diine rek laal ko dafay yaar loolu sa diggante eh, loo defal sëriñ bi doy na loo waxal sëriñ bi doy na ko ne waaye teewul da ngay sàkk ci li nga am di ko ci teral yàlla boo ñàkk teraanga kuy teral ñëpp ñoo naa say bopp naa sa <laughs>